xibaar yi lañu koy doore mooy AS Rome bi nga xam ni Mourinho moo ne ca bopp ba di ko tàggat tàggat goo xam ni amal na ko solo lool wala am na solo ndax moom ki nga xam ne mooy doomu Portugais bi defaat na beneen jaloore boo xam ne ci wàllu football ah, du jóg ci di def ay jaloore yoo xam ne exclusivement da koy def ngir boppam nga xam ni ah, jël na la nga xam ne ligue ah, maanaam Euh, conférence ba nga xam ne euh, daanaka mooy ñetteelu euh, wërngal ci ligue des champions bi nga xam ne moom la yëkki démb defal ko gone yi nga xam ne ñoo nekk ca Rome nga xam ne ba ñu gëjee laal la nga xam ne mooy ëpp yàgg na lool Mourinho mi nga xam ne def na loolu duggaat na ci histoire boo xam ne histoire bu am solo la histoire personnel la ci moom mi nga xam ne mooy Mourinho mi nga xam ne ah, moo doon coach ña nga xam ne mooy gone Real Madrid yooyu nga xam ne ah, survivant ya la ñuy ñëw ah, juróom-ñett ñi nga xam ne wala boog juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoo des ci di football ginnaaw ba nu jëlee la nga xam ne mooy fukkeelu Ligue des champions ba nga xam ne mooy décima ca 2014 ñii ñoo ca yëkkeeku wala boog ñoo ñoo ca des ak nga xam ne mooy Chelsea dóor na ci taaba ji benn enveloppe bu am doole boo xam ne pour njëndum fiir la c'est son personne ak ka nga xam ni moo nekk aka nga xam ne mooy euh, Habib Beye mi nga xam ni ne yokkaat na contrat am ak Red euh, Star nga xam ne ba mu xoolee la mu fa jot a doxal ci saison bi nga xam ni moom la génn euh, arrangé na ñoom ñaar ñëpp ba ñu waxtaanee mook président bi ñu yokkaat ca la nga xam ni mooy seenu contrat ba deux mille vingt quatre la war a jeex. Edouard Mendy euh, taxaw ak star bi nga xam ne euh, moo nekk ka nga xam ne mooy kii euh, Ronaldo mu mag ma nga xam ni bu ñuy wax tey jii Ronaldo mu ndaw mi mu mag maa taxoon ci gone yi nga xam ne yéen a nuy seetaan te football ah, daanaka da ngeen ci door a dugg Barça Real rek ngeen xam ki mooy Ronaldo mi nga xam ne ku la nga xam ne